waaw def ko moom rek ba سلام على طه الأمين جليسي سلام على البدر المنير أنيسي سلام على هذا النبي الرئيسي بوقت قيامي مثل وقت جلوسي salaamun ala almuzri li kulli nuxuusi ana beneen diwaan bi wala salaamun ala almurdi li kulli nuxuusi salaamun ala aljaa'i bi kulli nafiisi waxuma bii de beneen bindig loxo bi ñaar yi ma am ko mu ngi ci nekk salaamun ala almurdi li kulli nuxuusi salaamun ala aljaa'i bi kulli nafiisi salaamun ala almughli li kulli turusi salaamun ala almubdi baha annufuusi salaamun ala algaazi bi kulli xamiisi salaamun ala almufda bi kulli nufuusi salaamun ala taajin li kulli aruusi salaamun ala shaafi faqat bi masiisi salaamun ala turbi wa ardi gurusi salaamun ala garsi wa biiri wa biiri ariisi salaamun ala turbi wa ardi gurusi salaamun ala xarsin wa biiri ariisi salaamun ala jaari biduni duruusi salaamun ala almuti biduni maqiisi alayhi salaatullahi wa salaamu wa alihi wa sahbin hum ruusu ruusi dafaa anni al asrar المردي من المرزي على المردي لكل نحوس أتيني مبن على غروس سلام على تربي وأرض غروسي سلام على غرس أتيني مبير إريسي سلام nuyoo ala taaha ci taaha bu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu ne taaha ishaara la ci ne yonent bi mooy taahiru haadi ñu ne taaha ramzal isnayniya la dafay junju nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nu nga xamee ne lu yàlla di njëlbeen rek yontu moo ci tegu mooy tegu ca loola ni nga xamee ne peeb yàlla bi peeb lan la yontu bi sallallahu mooy awwalu buruzi tajaliyaat yi mooy feeñuwaay bu njëkk ni nga xamee ne yonentu bi sallallahu alayhi aadama ay atwaaram yëpp mbiram yëpp ci bési àjjuma la yonentu bi mbiram yëpp ci bési altine la aadama ci àjjuma la ko yàlla Eh, bind ci la ko yàlla may xawaaw ci la duggo aljanna ci la génn ci aljanna mbiram yëpp ci ajjuma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ni nga xamee ne maqaamaam maqaama isnayniya la ni bàyyi di wax xalila yemuraabi ala xadrati sana uqaddi lubaanaati alfuaadi almumazzaqi romb leen ak man yeen samay soppe ci payam ñaareel nga xam ne mooy pay bi yonent bi sallallahu alayhi wa ma faj suma aajooy xol bi nga xam ne mbëggeel xotti na ko yonent bi bési altine ci la juddu bési altine ci la ko yàlla rañaane si altine ci lañ ko waxyu si altine ci la gàddaay bési altine ci la génn àddina te altine xam nga ne mooy ñaareel ci semaine bi kon ba tey turam bi nekk taaha ak yaasin ba tey mu ngi junju ñaareel googu nga xam ne moom la nekk ci ñooñ eh, ishaara moo tax mu ne salaamun ala taaha al amini kede kuñ óolu nga xam ne kéeféer yi sax njëkk yàlla di yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñoo ko tuddee amin ñoo ko tuddee mamun dem na ba am kuy xas mbokkam ku dugg ci lislaam waaye ba muy indi tur yonentu bi maamun la wax hmm? saqaaka bihal eh, saqaaka abu bakrin bi kasin rawiyatin fa anhalaka al maamunu minha wa allaka ci borom banet soaadu def naa ñu bëri ci yéen jàng nañ ko eh, maamun la ko tuddee te boobu kat ci xas lay nekk mbokkam mu doon dugg ci lislaam la doon xas naan ko abou bakar moo la ci nàndal maamun sungali la ci maanaam dolli la la muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye kon nangu ne ne la te boobu dafay xaste <coughs> maamun mooy amin ba tey jëli si kay jékki xaale sama ndax malal xalba xubbul haashimi wa tanaafusi mada dahri fi waslihi wa huwa mujaalisi sama xol bi mbëggeel yonent sallallahu sama njëkkalante ci moom la sama rawante ci moom la te moom mooy ki nga xam ne mooy aji jékki xaale ak man salaamun ala al badri salaamu julli ala al badri nuyoo ala badri yàlla nekk ci yonent bi nga xam ne mooy weeru badar ni weeri badar mel ci biir weer yi gën leen a leer ñoom ñëpp noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa gën a ràññeekoo ci tànneefi yàlla yëpp al muniri kay aji leeral ani si ka nga xam ne mooy wéttale sama mooy wéttale sama <coughs> ku àgg ci wéttali koo yonent bi sallallahu alayhi wasallam dootoo wéet leneen loolu la bëgg a wéttali tim loolu moo lay xatal te bàyyi wax ne wal unsu bihi wal unsu bi xayrihi laa yakaadaani yajtamiaani salaamun ala haada nabiyi raisi salaamun nuyoo ala haada nabiyi yàlla na nekk ci bile yonentu raisi ka nga xam ne mooy njiit ndax mooy njiiti yonentu yëpp <clears throat> yàlla dajaleel na ko yonentu yëpp ba nga xamee ne mu ngi rañaan mu jiite leen ñoom ñëpp ñu nekk ci gannaawam boo xam ne moom mooy seen njiit te ñoom ñëpp yàlla jël na ci ñoom kóllëre ne buñ dajjeeg yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko gëm dañ ko jàppale bi waxti qiyaami ci waxtu bu may taxaw misla waxtu julusi comme waxtu wu may toog maanaam ci xaalam moom mu ngi taxaw wala xaali mu ngi toog xaal yooyu yëpp mu ngi ci julli ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam salaamu nuyoo alal murdi yàlla nekk ci ay aji xalak li kulli nuxuusi ñeexal <coughs> bépp gaaf yonentu boobu sallallahu alayhi nga xam ne mooy demee gaaf yëpp ba léegi mu ngi jullihaat ci moom sallallahu alayhi wa xama an duyuri kulla dankin wa fitnatin wa zaxzaxa anha kulla baaxin wa fasiqi ba moom moo dindi yonent bi moo yóbbu mbooleem xat-xat ak jafe-jafe jëlee na ko moom ci ay pàkkam moom Cheikh Ibrahima radiallahu anhu moo tax mu ne yonent mooy ki nga xam ne mooy téere bi mu ngi bind musdi du musdi murdi la salaamun alal jaa i nuyoo yàlla na nekk ci ki nga xam ne jaa i mooy aji dikkee bi kulli na fii si moom mooy indi lépp loo xam ne nii lu lu cher la lu foor la ndax moo ñu indil diine ji nga xam ne moo gën ci diine xibla bi nga xam ne moo gën ci xibla téere bi nga xam ne moo gën ci téere moom la yàlla jox cim Eh, umma bi nga xam ne moo gën ci umma kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkari wa tuminuna billah moom la yàlla jox tim xarn bi gën maas gi gën ci maas gi ndax xayrul quruni qarni summa allazina yalownahum summa allazina yalownahum maas yi li ci gën mooy maas gi ma dund moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam maas gi mu dund moo gën ci maas yi topp maas ga ci teggu topp maas ga ci teggu salaamun nuyoo alal mughli nekk ci aji seeral li kulli turusin ñeexal mbooleemi kayit yonent boobu sallallahu alayhi nga xam ne waxtu woo xamee ne waxam wala taggam mu ngi ci kayit seeral na kayit googu ba nga xam ne dootul mel ni kayit rek salaamun yo alal mubdi yàlla nekk ci aji feeñal bahaa a e, taari bakkan yi <coughs> nga xam ne moom mooy e, feeñal taari bakkan yi wala nuquus yi sax baha a nuquus yi ah. mooy nga xam ne mooy seeral taari eh, daxa maanaam daha buy daxa rek du dara waaye daxa joo xam ne ni dañ ci bindee tagg yonent bi salallahu alayhi wa sallama jooju mujj na foor ba mel ni du daxa salaamun ala al gaazi nuyoo yàlla nekk ci nga xam ne gaazi mooy aji songu bi kulli xamiis yi ci mbooleem lëlëb xare maanaam yonent wi nga xam ne moo gën ci songukat moo tax mu julli ci moom julli na ci moom ci ci nekk njiit julli na ci moom ci nekk ki nga xam ne nii mooy weer bu ràññeeku julli na ci moom nekkam di njiiti yonentu yëpp julli na ci moom ba muy toog moom bàyyi ak ba muy taxaw julli na ci moom yonentu bi sallallahu alayhi ce melo mi nga xam ne mooy demee bépp gaaf ba mu ñëwee gaaf dem na gaafal tim dem na xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa dafa dafa aaye tatayur dégg nga wane ne wane ne gaafal loolu amut comme ni ñenn ñi daan def arab yi bu ñu doon tukki nga gis ne dañuy dañuy dañuy dañuy dàq baaxaañ rek bu jaaree ndeyjoor ñu ne baax na bu jaaree càmmooy ñu ne tukki bi du baax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dindi na ko kon yonentu daana xarfaan waaye du gaafal xarfaan mooy lan mooy dana eh, gis tur wu rafet mu amee ci yaakaar gu baax comme ni nga xamee ne bi muy waxanteeg waa Màkka yi bëgg dugg omra Xudaybiya eh, ñi nekk ci sulxu bi waa Màkka yi yónni Suhayl Suhayl mooy yomb mu ne Suhaylun sahula amruna comme ki ñu yónni Suhayl la tudd suñ mbir mi dana yomb waaw dana xarfaan waaye du gaafal kon mooy ki nga xam ne moo demee mboolee mi gaaf julli na ci moom moom mi nga xam ne moo indi lépp loo xam ne nii lu yëkkatiku la ndax diineem ji yëkkatiku lépp lu mu ànd ak lu yëkkatiku la mu ngi julli ci moom moom mi nga xam ne moo seeral kayit yi ndax lépp loo xam ne nii aju na ci moom njëriñ la julli na ci moom moom mi nga xam ne moom lañ salaamun ala alxaazi bi kulli xamiisi salaamun ala almufda bi kulli nufuusi maa ngi julli ci nga xam ne almufda mooy kuñ jot bi kulli nufuusi ci mboolee mi bakkan yi maanaam yonent boobu nga xam ne salallahu alayhi wa sallam xeeyoo nañu jotee ko bakkan yëpp boppam lay wax ak bakkan yi nga xam ne xam nañ ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam day salaamun ala taajin li kulli arusi ki nga xam ne nii moom mooy taaj bi nga xam ne moo nekk ci boppam képp koo xam ne nii arusa nga wala seet nga <clears throat> salaamun ala shafii maa ngi julli ci nga xam ne mooy aji saafara faqat daal bi ma siisin ci laal ki nga xam ne saafara na ay jàngoro ci laal loxoom rek delloo na ba ci xataadata bi nga xam ne dañ koo fuqi ci delloo ko rek ak laal koog loxoom saafa mu saafaraw ba gën a wér bëtam bi nga xam ne dara jotu ko dara jotu ko woon ba bu doon wànnentu sax bët bi yonent bi sallallahu alayhi wa ak loxoom moom bokk ci wànnentu bi salaamun nuyoo ala turbi wa arde ala turbin hmm? turbin nga am yow ala turbin la téere mu ngi bind ala turbi salaamun ala turbin mu ngi julli ci suuf bi nga xam ne mooy ak wa ardi ak suuf ak xaruusin xuruusi hmm? hmm? ala turbi kon salaamun ala turbi wa ardi xuruusi ki nga xam ne nii moom mooy sama suuf te mooy suuf ak sama njiheef salaamun alaa garsin bu ma ñaareel bi garsin la e, ci teen yi nga xam ne mu nga woon ca <clears throat> Medina la wa biiri aris yi biiri aris ba tey Medina la nekk mooy e, teen bi nga xam ne fala jaaru yonent bi nekkoon ci loxo Seydina Ousmane e, bam fala rotoon nga xam ne boobu la jullit ñi am seeni jotaay bu ñu am yonent bi sallallahu alayhi wa naa toog ci eh, pingab ten boobu noonu Seydina Aboubacar nuyoo mu ne digal leen ko mu ñëw te bégal ko ci àjjana Seydina Ousmane ñëw Seydina Omar ñëw mu ne may leen ko mu ñëw ngeen digal ngeen bégal ko ci àjjana Seydina Ousmane ñëw ba tey mu bégal ko ci may ko mu diggu bégal ko ci àjjana ci shahada ñooñu ñëpp ci teen yi nga xam ne Medina la nekkoon yu ràññeeku la nga xam ne léegi nag yooyu yëpp daanaka faar nañ ko salaamun ala daari bi duni durusi mu ngi julli ci nga xam ne nuyoo ki nga xam ne mooy aji xam bi duni durusi ci lu ay tëralu ay ay dars yontu boobu nga xam ne yàlla koy jàngal wa allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullah alayka azima moo tax moom jàng na ci lu duhut dars ñi doon askan xam-xamam di wax ne dafa am ku ko doon jàngal ak yooyu yëpp du dëgg arab yi ñi nga xam ne seeni i weddi dem naan ba naan benn waa ruum moo ko doon jàngal te yonent bi jàngut loxatu ruum jàngut bañ na ko ba bindut sax salaamun alal muti bi duuni maqisi mu ngi julli ci ki nga xam ne mooy mooy aji maye bi duuni maqisi ci lu lu ñuy qiyaas di ko nattale mayam kenn mënu koo nattale du du nekk loo xam ne nii nit mën naa lim ne lii lay am dafay maye rek ci loolu amul fu mu em sala alayhi salatullahi wa salaamuhu hum ruusi ruusi alayhi salatullahi yal na ci moom julli yàlla suma salaamu ak nuyoom wa alin ak ñoñ néegam bi wa saxbin ak i saxaaba hum ñoom ruus ruus yi ñooy sangi sang yi allahuma salli ala sayyidina hada laylatu zikra qiila innaha laylatu lmawlidi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xayaatuhu madrasatun lana kullu xayaatihi taalimun wa jaada bi nafsihi lillahi taala wala garada lahu fi shay laa shahwata lahu wala garada lahu fi mamlakatin wala maalin mutaqashifun fi ayshihi wa malbasihi wa maskanihi daa'iman taalamuuna dalik wala yaqsudu bi jamii xarakatihi wa sakanaatihi illa wajha allahi tabaraka wa taala wa li ajli dalika qatala nafsahu salaasa maratin aw arbaan lama daa waxdahu ila alislaami wa makasa fi makkata fi tilka dacwati salaasa cashrata sanatan yatcanu fi ma cindahum wa yaquul lahum annahum laysu ala shay wa hum fihim almuluk waljuyush wa huwa waxdahu hada qatlu nafsihi wa xaraja min makkata laylan wa hiya masqatu ra'sihi wa laa yacrifu illaa hiya wa laa yacrifu ayna yatawajjah haadaa qatlu nafsihi fa hadaahu rabbuhu ila aldihaabi ila almadina fa makasa baynahumaa cashra maraaxila waljuyuushu yatlubuunahu fi kulli maxallin wa kullu waaxidin minhum muraaduhu an yadfara bihi haadaa qatlu nafsihi walaakin casamahu allahu minhum wa aqaama bilmadinati ashar sinina wa baada dalika qaama yujaahiduhum wa gadaahum sabciina gazwatan shahida sabcan wa cishriina minha baashara alqitaala huwa binafsihi fi tiscin minha hada qatlu nafsihi wa kullu hada laysa illa linusrati alxaq wa hada huwa alsawaab summa shay'un fi xabari qissati aadama wa iblis wa qaala allahu taala lama jacala aadama xalifatan wa amara almalaa'ikata bisujuudi lahu imtanaca iblisu min assujuudi lahu haadihi awalu shubhatin waqaat fi laalam wa hiya ruusu dalaali wa kullu dalaalin waqaa fa min haadihi shubhati waqaat fi laalami wa ahluha tabaun lahu ila yowmina hada wa qad qaasa llainu bacda an amarahu llahu bisujudi li aadam walakin ida waqaa nassun laa yumkinu القياس لأن القياس مع وجود النص باطل فإنه لو وفقه الله لا يمتنع من السجود ولكن رأى أصله من نار والنار من النور وآدم من طين والطين من الظلمة والنور خير من الظلمة واعترض على الله اعتراضات قال له يا ربي أنت ربي وخلقتني وقد تعلم أنك إذا أمرتني بالسجود لغيرك لا أسجد له فلم تأمرني بالسجود لآدم أنا عبدك وحدي وحدك walaw qulta li asjudu laka la sajadtu laka walakin la asjudu li gayrika walima xakamta calaya bilimtinaaci min asujudi li aadam walima taratanii min aljannati ولعنتني ولم طردتني لما جعلتني سببا لضلال كثير من خلقك ولما ولما جعلتني سببا لضلال هلا قتلتني أنت تعلم أني فساد وتركتني للفساد على خلقك kullu hadihi ictiradat sababuha annaka lam taalam annaka rab anni rabbuka wa anta abdi walabdu la yactaridu ala rabbihi falaw calimta anni rabbuka lama xaalaftani wa hadihi shubha hiya allati lama bucitha arrasul kadabu lihada qaalu in hada illa basharu mislukum kullun imtanacuu wa kadabuu liannahum liannahu basharu mislahum nasun nasu maa qaala iblis wa hada baqin ila yowmina hada ida raayta ahadan dalla fa dalaaluhu min shubahi iblisa falmatlubu altaxarus min jamici shubhati iblis walistiqamata ala taati wa adam alictirad ala allahi tabaraka wa taala bi na dañ ko jëlee ci waxtaan bu waay wax ne guddi gi guddik fàttaliku la ndax wax nañ ne mooy laylatul mawlidi juddu gi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo waaye ne yonentu nag sallallahu alayhi dundam yëpp école la pour ñun dundam yëpp njàng la pour ñun yonentu bi nga xam ne dafa tabe ak bakkanam maanaam joxe na boppam ngir yàlla te amu ci daara lum ci soxla benn xarat soxlawul daara amul bànneex ci daara amul xarat ci dara ndax soxlawul nguur soxlawul alal ndax liy tegtale loolu waa Makka ba leen seen mbiram jaaxale yépp yónnee nañ ci moom ne dañoo bëgg daal bu fekkee ne moom raba ko jàpp ñu utal ko ku ko faj bu fekkee ne moom alal la bëgg ñi daj dajaleel seen alal yi jox ko bu fekkee nguur la bëgg ñi def ko buur ci seen biir mu ne leen wala lu gën a yomb loolu yëpp mooy ngeen wax baat bii rek ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah seetal koo xam ne jaam yi wax baat boobu moo la gënal jaam yi dajee def la buur <clears throat> jaam yi wax baat boobu moo la gënal ñaari weer yoo xam ne nii cin du tàkk ci këram ñaari weer yoo xam ne nii li muy dundee mooy al aswadaani mooy ak tamr wal ma tàndarma ak ndox rek loo xam ne ñaari weer loolu rek lay am ci këram léeg-léeg bilaal nee na léeg-léeg daanoo fekk ci néeg yonent bi loo xam ne dana dana dana mën lu tolloog lu xaj ci poqataan sax du nekk ci néeg yonent bi sallallahu alayhi te moom la yàlla tànn jox ko lépp moo tax nga xam ne yàlla kum neex mu may la si àddina mu ngay am yu neex yi waaye am yu neex yooyu du teg tegtale mooy yow da ngaa jege yàlla ndax bu doon loolu yonent bi sallallahu alayhi moo lay gën a am loolu tamaste tiim rek gàtt boo xam ne eh, dañ koo michu mat sëkk ci néegam solom tim noonu la lu xemaay lay sol bañ na ko moom sallallahu alayhi wa sallam ba sib na lu ñuy wax libaasu shuhrati mbubb moo xam ne boo ko solee ku nekk di xool ne lii mbubb mi ni mel nii maanaam ci rafet bu ëpp wala ñaaw bu ëpp tim parce que shuhratu duhut rek mooy lu rafet ba ëpp waaye ñaaw ba ëpp it bëgg ko sol yoo xam ne foo romb ñu ne diwa nga ne loolu yëpp yonent salaay salaam dëddu àddinaam àgg na foofu dëkkuwaayam ba tey bu xemaay la loolu yépp ci dëddoo àddinaam dafa ne àddina xurri xayri àddina jéem a la xor xor keneen ku dul man dafa ñaan ne allahumma jaal risqa ali muhammadin kafaafan beneen mu ne quutan yàlla defal dundu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñam muy xem dund bu xemaay rek xem ci mu ne xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi ci mbooleem yëngatoom yi ak mbooleem dal yi jubluwu ci coon lu may jëm yàlla ji tabaraka wa taala bàyyi mu ne looloo tax gaaral na boppam ci rey ñetti yoon walla ñeenti yoon ndax ba mu toogee màkka di oote moom kenn ci diine ji fukki at ak ñett di xas seen yàlla yi di leen wan ne duñ yàlla di leen wan ne nekku leen ci dara te fekk ay njiita ngi ci seen biir ay ñu am xare ñu ngi ci seen biir moom mu nekk kenn amul kenn ku taxaw pour défendre ko ci loolu yàlla mi ko yoon yónni moom rek laa am te boobu sax yàlla digut ko ne ko garanté naa na duñ la rey loo tax ba mu dem na ba dem Medina sax ñu koy garde ndax xam na ne li yàlla jaar ak yeneen yonent yi bu ko neexee mu jaar ceeg moom bañ yàlla wàccee ko yaasimuka mina naasi ci la ñu ko doon garde ci la leen aaye boo demee ba léegi boo demee Medina Munawara boo demee ci rawdatu bi nga xam ne moo nekk diggante xabru bi ak minbari bi xam ne moom la yonent sa sallallahu alayhi wa sallam wax ne si ma diggante néeg bi ak sama minbar bi dër la ci dëri na boo demee foofu danga gis ne ñu ngi ko def dañ ko def benn kapet euh, euh, sajjaad boo xam ne dafa dafa axdar dafa hmm? bu verte foofa nag da fa fekk benn dafa am ay ustuwaana yu fa nekk ay pieux am na benn ustuwaana boo xam ne boo demee da nga fa fekk ñu bind ustuwaanatul xaras ñi daan garde yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu lañ daan taxaw ba yàlla wàccee wallahu yaasimuka min annaasi mu soxlaatut garde kon lim nekk màkka xam nga ne loolu digguñ ko ko mu nekk moom kenn di oote ci yàlla di oote ñoo xam ne ñoom ñëpp dañoo weddi li muy oote te ñoom ñëpp ñu ngi am doole am ay pexe bàyyi ne loolu xam nga ne gaaral na boppam ci dee ngir oote bi ba tey ba mu demee ba xajatut ak ñoom muy génn màkk guddi gàddaay jëm ci yoon woo xam ne sax xamu ko ndax liy tegtale na moom xamul yoon wi ndax utoon na koo xam ne moom moo leen di wan yoon muy dalil boo xam ne ni moom moo leen di wan yoon wi ñu koy fay kon mooy yoon wi sóobu ci guddi googu xamu ko bàyyi ne loolu it xam nga ne eh, rey na ci boppam maanaam gaaru na boppam ngir dee fekk boobu mu ngi ci yoonu a wara nga xam ne dagg na ko ci fukki euh, maraaxil fekk ñu ngi ko topp ci di ko ut pour rey ko dem ba joxe dig sax ne képp ku ko wane daañ la dañ la fay téeméeri gëlëm kon gaaral na boppam pour rey ngir oote boobu nga xam ne moom lay oote waa yàlla wattu ko mu sax ci madina munawara fukki at ci biir loolu taxaw na di jihaat ak ñoom song na xare juróom-ñaar fukki xare yoo xam ne moom ci boppam fekkee na ci ñaar fukki xare ak juróom-ñaar xeex na ci ci juróom-ñeneenti xare yoo xam ne daf doon jànkuwanteeg jaase yi di xeex ba nga xam ne xam nga ne ba si Uhud jam nañ ko ba xam ne toj nañ sax sellam bi ba xeveer yi Abdullah ibnu Xamiata bi nga xam ne moo ko jam mu siiwal ne qutila mu sallallahu alayhi wa sallam wane na rey na yonent bi Iblis dimbale ko ci montagne yëpp siiwal waxam ji ñëpp siiwal ne yonent bi sallallahu alayhi wa nañ ko loolu yëpp rëng-rëng kii xam nga ne fuñ ko mën a jëmee jaase jaase jooju mënoon na koo rey bàyyi ne kon gaarul na boppam pour rey ku dugg ci xare yoo xam ne tim da ngay dóor ñi lay dóor ba tey gaarul nga sa bopp ci rey te dugg na ci xare yoo xam ne juróom-ñeneenti ci boppam moom moo téye jaaseem di xeex ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne tim moo nekk général bi jiitu ko kon gaarul na boppam ci lu ko mën a rey ay yoon loolu yëpp nag bàyyi ne defu ko lu may ngir yëkkati dëgg rek loolu mooy dëgg mu indi beneen xissa ci xissa aadama ak ibliis iblis ba yàlla defee aadama <coughs> mi xalifaam ci suuf waxa iblis ne ko na ko wax malaaka yi ne nañ ko sujootal ñoom ñëpp ñu sujoot iblis bañ bàyyi mu ne lu réeral iblis ba tey réer guy tàbbi ci nit ñi rek ba léegi ci subha boobu daloon iblis foofu lay jóge ba léegi mooy cosaani réer ku réer rek loolu nga topp iblis lu ko réeral mooy ana xayru minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin maa ko gën man yow ci safara nga ma bindee moom nga bindee ko ci euh, ban bàyyi mu ne iblis dafa xiyaas gannaaw boo xamee ne nas wàcc na bu yàlla xasee ba digale doo waxaat di xalaat naan man maa gën moom a gën ak la ci chariatim boo déggee atte nangam dañ ciy qiyaas damay fekk ne amuñ ci nas sarix ne shariati waaye bu nas eh, bu wàccee nit ki dootul qiyaas di jëfandikoo xelam ne lii lii laay wax xam nga yàlla bu waxee ne boo amul ndox nga tiim doo mën a wax ne ah man daal comme jàpp pour setal yaram la man léegi bu ma amul ndox au may tiim damay jël mouchoir rek dégg nga eh, fomp suma yaram moo gën a jege set xam nga loolu qiyaas la xiyaas boobu mënta ñëw gannaaw bu yàlla diglee ne boo amul ndox na nga tiim iblis tim looloo ko dal xiyaas gannaaw boo xamee ne digal yàlla wàcc na loolu duhul njub bu ko yàlla eh, defaloon tawfiq dafay def rek li yàlla digalee waaye mu ngi xool cosaanam naa man suma cosaan ci safara lañ ko bindee te safara ci leer lañ ko bindee aadama ci ban lañ ko bindee ban ci suuf lañ ko bindee suuf ci lëndëm lañ ko bindee leer moo gën lëndëm kon man maa gën iblis maa gën adam dafa qiyaas bu fekkoon ne cosaanam moo gën sax sa cosaan gën taxut nga gën sa cosaan gën taxut nga gën mën ngaa am ndox mu sell lool kële am ndox mu nëx lool sa ndox mu sell ji nekk saw ndoxam mu nax mi lool mooy mujj gën sa ndox mu sell moomu nga xam ne dafa mujj nekk soow te cosaan moo gën bu cosaan bi gënoon sax tekkiwut ne bu sa cosaan gënee yaay gën waaye bàyyi ci siiram feneen wax na ne iblis sax dafa juum li mu foog ne safara moo gën suuf sax du dëgg safara gënu suuf mu ne safara kenn mënu cee am néeg di am dëkkuwaay booy toog suuf ci la ñuy dëkk nit ñi bu ñuy dund ci la ñuy dëkk buñ dee ci lañ leen di suul safara loo ko dénk léegi loo ko defarloo boo geestoo te toppatoo ko nga ñëw fekk mu mu yàq ko moo tax toggkat yi gis nga kaleera yi li ko indi mooy ñàkk óolu safara rek yàqam dafa gaaw waaw boo doon lakk sa yàpp léegi teg ko ci safara si direct benn minute la la may boo ko deful mu yàqu dégg nga kenn mënu cee am dëkkuwaay kenn mënu cee am xabru kenn mënu cee am dëkk bàyyi mu ne kon li iblis foog ne safara gën suuf sax loolu wérut te bu safara gënoon tim sa cosaan gën rek tekkiwut na yow yaa gën mooy nag iblis amul foofu ay question yu bari la ñëw di laaj yàlla te loolu yëpp ci ndëngam la bokk waaw man man yow yaay sama borom yow rek yaa ma bind keneen bindu ma te yow ci sa bopp xam nga ne boo ma digalee ma sujootal keneen ku dul yow du ma sujoot kon lu tàng may digal tax nga may digal ma sujootal aadama te yow xamoon nga ne boo ma ko digalee du ma ko def man yow rek laa doo sa jaam duma ma jaami keneen lu tax nga may digal may sujootal keneen ku du yow te lu tax ba nga ma ko digalee nga àtte ci man ne man boo ma digalee duma def ba lu tax nga génnee ma àjjana rëbbu ma lu tax nga def ma may sabab réer pour sa mbindeef yu bari lu tax nga def ma may sababi réer lu taxoon nga lu tere woon nga rey ma sax ba nga xamee ne man yàq laa fi ne nga ma fi bàyyi pour may yàq bàyyi mu ne loolu yëpp ay gaaral la yoo xam ne li ko waral mooy li ko yàlla wax loolu yëpp li ko waral mooy danga da ne may sa borom rek da ngaa ne maay sa borom yow sama jaam boo xamoon ne maay sa borom yow sama jaam nga boobaa doo gaaral ci dara boo xamoon ne maay sa borom doo uuteeg man bàyyi mu ne loolu réeral iblis moo réeral xebeer yi ba yàlla yónnee yonent bi ñoom it ñi commencé di xiyaas rek in haada illa basharun mislukum kii nit rek comme yéen waaw naka lay nekke nit comme yéen léegi mu bugg a nekk ab yonent waaw yéen bokk ay maam yéen bokk naa nangam tey mu fël rek bu ko wax ne yonentu la waaw ñii di wax ne waaw kii di lekk maali hada rasul yaakulu taam wa yamshi fil aswaq koo xam ne def na yonentu yàlla la muy lekk di dem ci marché yi dégg nga naka la nekkee yonentu yàlla loolu yëpp mooy xiyaas ci xel gannaaw boo xamee ne mbiram yàlla ñëw na bàyyi mu ne loolu réeraloon iblis nag mooy continuer ba tey képp koo gis mu réer rek li réeral iblis moo ko réeral mu ne moo tax jaam bi war naa moytandiku loolu waaw diw mi lii diw nangam diw lii waaw lim doo rek la doo waaw lim jàng laa jàng lim xam rek laa xam nangam nangam kañ la fi juddoo kañ la fi xam loolu nit ñi xamut kañ la fi doolu nit ñi doowul waaw moom euh, diw sangam rek la ku bëgg a mucc bàyyi mu ne nga moytandiku loolu jub ci topp yàlla ak bañ a gaaral yàlla tabaraka wa taala loolu la jàmbi soxla jub ci topp yàlla ak bañ a gaaral yàlla tabaraka wa taala allahu tabaraka wa taala jaala annaasa ixwatan wal axu qismaani axun ala sabili muusa wa haarun wa axun ala sabili ixwati yusufa wa kulluna yasaa li yakuna maa axihi kama kaana bayna muusa wa haarun lianna muusa talaba min allahi nubuwata li axihi lama arsalahu llahu taala qaala haaruna axi shud bihi azri wa ashriku fi amri waqaa maa talaba min allahi qaala allahu sanashudu addaka bi axika wa najcal lakuma sultaanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man tabacakum alxaalibuuna wa ixwatu yusufa ala annahum fi axiri alamri rajacuu ila allahi wa saaru ambiyaa daxalat fihim namima fa qaala allahu xaakiyan canhum la yusufu wa axuu axabu ila abina minna fa sarat hadihi namimatu fihim xata qaala aydan xaakiyan anhum uxtulu yusufa aw itraxu ardan yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min baadihi qawman saalihin ixdaru min an yaqaa fikum maa waqaa fi ixwati yusufa qaala allahu taala yasalunaka maada yunfiquuna qul maa anfaqtum min xayrin fa lilwalidaini wal aqrabin qaddama alwalidaini ala alaqrabina fi lmuwaasaati qaala sallallahu alayhi wa sallam annaasu macaadinu fihim macdanu zahabi إذا أردت استخراجه وجدته ممتزجا مع الأرض كأنه منها متواضعا وإذا استخرجه أحد وباعه يملأ يده غنى وإذا ادخره ادخر شيئا نفيسا وإذا جعله في النار يزداد حسنا هذا معدن رفيع والناس معادن وفيه معدن اسمه الماس وهو أجوده لا يؤثر فيه شيء إذا جعلته في النار لا تؤثر فيه فإذا أخذه الحداد وضربه لا يؤثر فيه ولا تغيره الشدائد والناس فيهم جنس هكذا لا تغيرهم النعماء ولا الضراء وفيهم معدن الحديد في غاية الرخاصة متوادع يضع يصنع منه كل شيء تصنع منه آلة الحرب كالسيوف وغيرها كآلة الحراسة وآلة البناء على كثرة منفعته لا يحسب نفسه شيئا وإذا جعلته في النار تصنع منه ما شئت ومع ذلك رخيص الثمن رخيص الثمن ونفعه كثير والناس معادن fa fihim maadanu rosaas wa dalika laa faidata fihi wa in daxartahu lam tudaxir cheyan wa ida batahu laa tajid minhu cheyan wa ida jacaltahu fi naar yakunu ramadan wa ida axastahu yuwassixu yadaka wa saxan laa yazulu abadan yujadu fi nnaasi mislu hada aidan wannaasu macaadin walinsanu yaxtaaru ay hadihi almacaadin yakunu uh, mislahu wannaasu laysu sawa salaam allah wasala ala sayidina muhammadin fatih bii moom dafa am relation moom it ak leetar bi ñu jàngoon démb may ay taalibe yu nga xam ne ñoo doon jotee moo tax Baay bindoon ko ba tey leetar bi mottali la mottali ci boobu nga bale mu ngi nekk saamine mi rabiil awal maanaam juróom-ñetti fan ci weeru gàmmu bii nekk ñaar fan ak benn ci weer gàmmu ci même at bi ñoo bokk li sabab lettre bi moo sabab lii bee sax dafa bii sax ci mujj la bind waaxid wa waaye ci commencement bi taasi la bind maanaam dafa bind bii tey bii mu bind ko ci suba gi ne allahu tabaraka wa yàlla dafa def nit ñi ñi ay mbokk bàyyi mu ne mbokk ñaari xeet la mbokk yoo xam ne dañoo mel ni mbokkook ak Muusa ak ak mbokk yoo xam ne dañoo mel ni mbokk ak ak mbokkam yi mu ne ñun ñëpp dañoo war a dox pour mel suñ mbokk yi ni Muusa ak Haaruna meloon xam nga Muusa Haaruna mooy magam waaye Muusa moom la yàlla njëkk a tànn def ko mu yonantu Muusa moo ñaan yàlla ne ko Haaruna Haaruna axi shudud bihi azri Haaruna soo mbokk la dëgëreel ko suma pëdëg maanaam dimbalee ma ko te nga boole ko ci suma mbir moo la ko moo ñaan yàlla pour yàlla may Haaruna mu nekk ab yonent yàlla may ko loolu qaala sanashuddu abdaka bi axika wa najal lakuma sultaanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man tabaakum alxaalibuun yàlla ne ko danaa la dëgëral ci sa mbokk sa pëdëg danaa ko dëgëralee sa mbokk Haaruna may leen nguur doole goo xam ne xéeféer yi duñ mën a àgg ci yéen samay kawteef te yéen ak ñi ànd ak yéen yéen ay gañe mbokk gu baax day mel ni mbokk ak Moussa ak Haroun la ixwati yusufa nag ñoom donte mu jigi tuub nañ ba yàlla tànn leen ñoom ñëpp def leen ñi ay yonantu gannaaw bu leen yusufa baalee qaala laa tasriba aleykum alyawma yaxfiru llahu lakum waaye rambaaj moo duggoon ci seen biir yàq seen xel kenn ci ñoom di wax ne yusufa ak mbokkami binyamin ñoo ñoo gënal suñ baay moom lañ gën a bëggu moo tax nañ ko sànq kenn ci ñoom di wax ne nañ ko rey wala sax nañ ko sànni ci àll boo xam ne suñ dootuñ ko gis bu ko defee suñ bàyyi des ñeyal ñu ñun rek ñu nekk ñoo xam ne nii dañuy am luñ bëgg loolu lañ defoon moo tax ñu dem sànni Yuusufa ca ca teen ba bañ for ko jaay ko waaye pexe yooyu yëpp mënu ci ku yàlla di dimbale dara boo ko buggee lor da koy dimbale jaay nañ ko foo xam ne mujj na nekk fa buur ñoom ñëpp ñi ñëw mujj nekk ci ronam mbaay mu ne mbokkoo dafa war a mel ni mbokkook musaa ak Haarun Baay moo tax mu ne taalibe yi ne leen moytu leen li tàbbi woon ci mbokk yuusufa yi tàbbi ci yéen yàlla nee na ñi ngi laaj yàlla ñi ngi laaj yonentu lan la ñuy dundale yàlla ne lu ngeen di dundale ci xiw na ñeel seeni waajur ak ñi leen war ñi leen gën a jege jiital na waajur yi ci yooyu jege ñaale yi ci dimbalante yonentu salaa baay mu ne yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na nit ñi ay mbell lañ mbell am na mbell moo xam ne urus la boo ko buggee bàyyi mu ne urus boo ko buggee génnee ci suuf da nga koy fekk mu toroxlu ba nga foog ne moom ci xeeti suuf si la bokk da ngay foog ne suuf la loolu ñuy for urus yi ci suuf xam nañ ko mook suuf si am na ñoo xam ne dañuy lay rek ba door a génnee danga koy fekk mook suuf ñoo bokk mu toroxlu waaye boo ko génnee ba ber ko ba jaay ko da nga ko fekk ne da ngay mujj am da ngay mujj omal boo ko dencee it alal nga denc dootoo ragal eh, xew-xew yu bés yi ci wàllu ñàkk boo ko defee ci safara safara mënu koo yàq daf koy gën a taaral mu ne mbel moomu mbel mu kawe la naasu maadin nit ñi ay mbel lañ mu ne am na ci mbel moo xam ne dafa mel ni jamaa moo xam ne mooy ci gën a foor dara mënu see jeexital boo ko defee ci safara du jeexital du ko soppi ci moom dara bu ko tëgg jëlee di dóor dara du xew xat soppeeku jamono yi mënu koo soppi maanaam nit ñi am na ci ñoo xam ne tim maanaam noonu lañ mel bu jamono neexee bu jamono de ñoom ñu ngi ca mbaax ga nga xam ne rek ci lañ war a nekk bàyyi ne xeet yi kon am na ci ñu mel ni maadanu boobu nga xam ne moom mooy jamaa neex-neexi jamono du leen soppi jafe-jafe jamono du leen soppi am na ci xeet boo xam ne mbell moo xam ne comme weñ yi la weñ da ko gis mu nekk loo xam ne nii lu lu yomb la lu toroxlu la waaye gis nga soxla yu bari ci la ko nit ñi di fajee ci la ñuy defaree ngànnaay e, xare yi ci la ñuy tabaxee kër yi ci la ñuy defaree jaase yi ci la ñuy e, defaree yi ñuy bayee loolu yëpp lu bari njëriñ la ànd ak ne moom boo gisee lu toroxlu la boo ko defee ci safara ak lu mën a xew da ci mën a liggéey loo bëgg ànd ak loolu moom dafa yomb nit ñi tim am na ñu mel noonu te bari njëriñ wa naasu maadin am na ci maadin nag boo xam ne mbell moo xam ne mooy dafa mel ni përëm rek bëriwul njëriñ boo ko dencee dencoo lu foor boo ko jaayee doo am lu bari boo ko defee ci safara mu ruus ba nekk euh, doom boo ko téyee mu mu tilima la tilim boo xam ne du gaaw a dañ mukk am na ci mu ne nit ñi tim xam ne dañoo mel ni mbel moomu naa addin mu ne nit ki nag mooy tànn ci ban mbel la bëgg a bokk nit ñi xamuñ waaye nit ki mooy tànn ci ban mbel la bëgg a bokk loolu kat mag ñooñu ñu doon yar ñoom la doon wax loolu pour wan leen ne man ngeen a tawaado ba mel ni rus te du tere eh, ngeen nekk loo xam ne nii maanaam eh, togg ak ñu suufe ñi du leen suufeloo gis ñi bon ñi du la yàq gis ñi ci kàccoor du la du la soppi yow daal yaa ngi ci sa mbaax waaye yaa ngi toroxlu mën ngaa mel ni ba tey euh, jamaa bi nga xam ne moom tattati jamono du ko soppi lu jamono mel rek moom moom mu ngi mel ci mbaaxam ba tey kum neex nga nga nga jéem loolu kum neex it nga mel ni weñ yomb lool waaye bari njëriñ lool ba tey nit ñi am na ñu mel noonu defe naa du neex kenn nag mu mel ni përëm bi nga xam ne du jar dara euh, te boo ko kiiyee mu mu taqal la naasuma aadin loolu ci yar bi nga xam ne mu ngi ko doon yar ñooñu nga xam ne euh, lu baax tey ci yoon wi ñoom bokk nañ ci loolu moo tax euh, euh, kuñ yarut nu la neex ngay mel ñi baax nii nga gis du ne dañoo leen a sëpp jugee leen ci asamaan yi rek ñi baax mel niñ mel déedéet dañ leen a yar di leen fuglu di leen wan di leen jàngal bañ mel niñ mel allahuma salli ala sayyidina muhammadin fatih jàng fàtte yi ñetti saat fàtte yi ñaanal yàlla ñu ñaan nga may ñu di la ñaanal yàlla ndax dañuy defal loxo mu ñu laa koy ñaanal ñu ma ko defal ñu jàng fàtte yi ñetti saat fàtte yi ñaanal yàlla suñu mboolem projet bu mu am ak mboolem aajo bu mu am yàlla yooyu na ko yàlla yokk ko ba àdduna bi mu yokk ko saa yu ko bàkkee yàlla jërëjëf mbokk téléspectateur euh, Kossy TV ñu ngi kontaan bu baax a baax di wax Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé yàlla na fi yàgg te ànd ak wér yàlla na yàlla yàggal ko fi suñu kanam bu baax a baax may ko wér may ko kàttan si liggéey bi nga xamante ne nii liggéeyu maamam la euh, dëkk ñaan yàlla benn yoon yàlla na yàlla fayante ak moom yàlla na yàlla yàggal ko fi yokk liggéeyam bu baax a baax a baax ma Mawlana Cheikh Ibrahim barke Seydi Aliou Cissé barke kullu koo xamante ne nii liggéey nga Mawlana Cheikh Ibrahim ba Cheikh Ibrahim gërëm la di joxante ak yéen di daje incha allahu rabbi fii nga xamante ne nii moo nekk fees si bayal ba ànd kook Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass jërë ngeen jëf.